yow de Omaro di nga xam ni Ayo Balde du juddu jéeri du mbadantaan fii la dëkk dootoo ko defati Ayo Balde du wër di Samba soxlawul ay géer xale bi ba mu doonee lu tuut lu tuuta tuuta tuut la dem Europe di daan dooleem pakk ndigam di liggéey nekk commerçante di def vente en ligne xale bi namul dara kooku sibooruwul kenn dunguruwul kenn marul tuunu kenn pour lekk ñaan dërëmam nga araw da ngay bàkk yow nga xam ne siboorukat nga dungurukat nga markatu tuun nga pour am dërëm wala ñaar dërëm yow sa salaire yow xam nga ni 2S la jagal bu du woon ak 2 nga tepp sa di jëw nday siboorukat bi nga doon dooma raam bi yow yow yow Omaro foo toj Ayo Baldé mi nga xamante ne liggéey rek la xam dan doolem rek la xam kenn du ko dégg ci daray ñàkk fayda wala matadi ndax ndax nag munta ñàkk ci dundu doomu Adama waaye lu wees wees na tey lañu jàkkaar lool te tey ya feeñ la góor jigéen nga waaye yow Omaro sa cottu ndey sa cottu ndey ba ma ci wër di dakase déggoo de yow bandi woo da ngay bandi bandi lu kooba yu mag yaa ngi nii toog nga yabal sa koy kii nii rek périgom bu rouge mu mel ni kankurang doomu saram ndayam bii pet wayadi mankan kunkan yow Ayo Balde du la tontu mu naan ko vidéo bëgg buzz ak followers Ayo Balde amul sa du sa moroomu nday Ayo Balde du sa moroomu nday dégg ma ayobale du la tontu ñun nii ñoo lay tontu di wër di ubbi sa lëfal nday suba soo yeewoo suba boo yeewoo ubbi say bët sa digg lëfal nday te doo ci mën dara Omaro mooy li ma la wax rek doomu caga nga góor jigéen sa baay di góor jigéen sa yaay di caga nga judd ñetteel leen taloo katt sa jabar virtuellement taloo ko wax wax ju neex talu leen a defante yu baax ndax loo ko war a defar rek kattee ko joob Diop bégalee ko Sidi joob raayee ko ko fóonee ko ko da ngay takk jabar di ko mu boo jabar na nga koy mbubboo waaye yow soxla woo jabar góor ñi nga soxla ndax góor jigéen nga góor jigéen nga góor ñi ngay katt Sidi Diop ngay katt di ko raay di ko foon taloo katt sa jabar virtuellement mu ñaan la baat nga ne àddina tey lay tukki di yónnee dootoo ko defati ñun duñ la sosal liñ lay waxal dañu koo xam nangay ngay réglé rek nag ñu ni tekk bàyyi soow mi mu dégg nga ñàkk a réglé ñu waxal la liñ la xamal dëkk bi toj waa Sénégal nag lii am na waali am na tey ñu sëy par la force bu ñu seyul ma yàq sa der Omaro mënoo yàq deru Ayo Baldé nang cee ndaw mënoo koo yàq laa ilaha illallah Baldé bànnaa bi fees riis bees jongoma mënoo koo yàq ke naan fan si kon Omaro am na fan si kon am nañu ko bëgg ba koy fan si boo am nañu ko nawloo man xawma ko woon Omaro dama bëgg nga toog gis nga boo ñu woowee ci guerre di nga départ bàyyi ñu fa ndax li ñu la xamal bëri na avant Ayo Balde jeeg bi nga fase un mois ngeen def nga dem ca kër ga di jaay reewande ñu nokk la ba diri la doyatul taloo taloo bëggal sa jabar taloo waxtaan ak moom taloo ko neng nengal doo ko aayoo nenne ndax loo ko war a bëggalee bëggalee ko Sidi Diop taloo dara ak Sidi Diop ak Matar Diop ñoom Matar Subateel ñoom nga tal ñooñu nga tal ñoom mataa suba teel nga tal ak Sidi Diop loo war a na loo nar a bëggale sa jabar baa nga wax ko ko wax ju neex baa ngeen bëggalante ci téléphone bi dem nga kattee ko Sidi Diop waxtaanal ko bëggalee ko ko yow moo benn temps Amaro guerre day saf mondial lu ko may coroto ya bari yaa ngi dégg gis nga ñun duñu sos ñun duñu sos ñu fen waaye lu ñu yëg mu siiw fii Sénégal la koo xamal kilo ba di ko ko waxal xamal nañ la panta waxaluñ la ko dama bëgg na xolal nga arrêté bu dul loolu yeneen mboot génn góor jigéen nga sa baay góor jigéen la góor jigéen nga sa baay góor jigéen la tekki woo dara subaak démb ak tay kata Sidi Diop nga fi nekkee maa ngi suñu jàmm boo jógee yaa mataaja suba teel man ku ma soxla nangam ak nangam tojoo fenn Sidi Diop dama bëgg dama bëgg nga dem toog tojoo fenn Omaro tojoo fenn xaroo fenn maax ñu naa fan sa club yow ku la nawloo yow ku la faale yow ku la lijjanti Sénégal na mu toll amul kenn ku ñuy créer fan si club ku du amoro perte góor jigéen bu toj cottu ndayam bi waaye demal nga toog